salaam salaam la mi fa ah bëggee ziar di bëgg ñëpp waa di nuyu ñëpp monde entier ah Sénégal yëpp maa leen di bëggee waa leen wax ne xam nga ñun ay ndaw lañ ay sportif lañ bëgg nañ kuñ jàppale surtout maire sànjare yow laay waxal Serigne Diop Gueye. Serigne Diop Gueye. yow laay waxal da nga war a jàppale doomu dëkk bi Ondinga. Serigne Diop Gueye da nga war a jàpp si. xam nga si sa champion xam nga. man man doomu dëkk bi laa. dama nekk koo xamante ni dama nekk benn élément boo xamante ne xam ku am ginnaaw la bëgg naa nga jàppale ñu yow yaay suñu monsieur le maire danga war a jàpp ci sport bi ñun ay xele lañ ay ay ndaw lañ bu ñu jógee ñëpp topp suñu ginnaaw ñun ñu nekk koo xamante ne dañ la jox bopp xam donc dañ war a jàppale jàppaleñ ci làmb ji ñu nekk xam nga waaw yàlla jëmale ñu ci kanam xam nga ñun xeebuñu dara. ñoo ñu mën a jàppale rek ñun war dañ am ay combat di am ay car am ay biens yoo xamante ne nii mbëru waa Dakar dañ koy am. mais ñàkk moyen ñun bëgg lool mais ñàkk moyen. saa dañuy am ay combat. pour nga gis car yoo xamante ne sax day war a jóge fii dem Dakar a yooyu noonu. day xaw a jafe. ñu bëgg nga jàpp ci bu baax a baax xam nga kii bu jógee jeunesse bi yëpp jóg te ku ne sport ne jeunesse. ne jeunesse bi dañ koo gëm te yow. tamit jeunesse bi ngay woo pour ñu ñëw jàppale si sa politique bii nii nga nekk mm-hmm. kon dañoo bëgg nga jàppale ñu nga jàppale doomu dëkk bi muy nga di champion bu mag